الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mbokki jullit yi maa ngi dénk saw bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu bokk fàttaliku ne dugg nañu fukki fan yu mujj yi ci weeru koor fukki fan yu mujj yi nga xam ne yiw da ciy bari lool yool yi da ciy mag lool ngëneel yu siiw ak ay jagle yu bari moo ci nekk bokk na ci jagle fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci lanu nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daana ci farlu ci jëf ju baax lu gën a bari ci lu mu daan farlu ci jeneen jamono judul moom jële dañ ci Aïcha radiallahu anha mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni mu daan farloo ci fukki fan yu mujj yii daawu ko farlu ci beneen jamono bu bokkul ak moom hadis boobu muslim solo na ko Aïcha radiallahu anha dellu wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu fukki fan yu mujj yi masaan dugg nee na daf daan takku ba dëgër sori waa këram waaye dundal guddi ya yee njabootam gépp ñu ànd di dundal guddi yi xadis boobu Buxaari yoog Muslim solo nañ ci ñaari xadis yooyu mbokk yi danañ ci dégg kon gënee lu màgg li nga xam ne fukki fan yu mujj yi am na ko ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ci daan farloo ak ni mu ci daan taxawe ci jaamu yàlla daaw ko taxawe ci beneen jamono bu bokkul ak moom farlu googu mu ci daan def nag da daan làmb mbooleem xeeti jaamu yàlla yi julli jàng alquran tudd yàlla sarxe mbooleem jëf yu baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko daan gën a baril ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan dundal guddi yi ci taxaw di naafila di jàng alquran di tudd yàlla ci xolam ak ci làmmiñam ak ci ay cëram ngir teddaay yi nga xam ne guddi yi am nañu ko ak itam ngir sakkuwaale taseeg laylatul xadr laylatul xadr googu nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko taxawal di ko naafila ku ko dundal te ngëm yàlla rek tax ak sakku tuyaaba li jiitu woon ci say bàkkaar lépp dañ la koy jéggal hadis boobu tey teg na kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam guddi gi yépp daf ko daan guddandal ci jaamu yàlla ci tudd yàlla ci jàng alquran ci julli ci waajtaay wi muy def ngir taxaw ci jaamu yàlla yooyu ba ci sax xadd bi nga xam ne dana ko def ci biir guddi googu ci jaamu yàlla gi la bokk bokk na ci liy tegtale ngëneelul fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ci daan yee njabootam ngir ñu jóg di julli di tudd yàlla ngir xër lool ci màng barke bu rëy bi nga xam ne moo nekk ci guddi yooyu ndax kat fursatul omre la maanaam occasion la boo xam ne bu doom aadama dajeeg moom war naa profité màng li ci nekk ci aw yiw jaaduwul ci koo xam ne ku gëm yàlla la ko am xel muy fexe ba yiw wu rëy woowu di ko faat di faat itam njabootam ndax kat lu yomba màng la ndax ay fan yu néew la yoo xam ne doomu aadama bi mën na cee daje ngëneelul suñu borom tabaraka wa taala loo xam ne ci lak texeem adduna ak alaxira di nekk nekk na ñàkk sens lool nekk na perte lool lu bari li ñuy gis ci jullit ñi fukki fan yu mujj yi bu ñëwee ñu di ko sàggane farlu gi ñu doon def ci weeru koor fi ñu ko waroon a yokkee fi lañ koy wàññee commencé sàggan nga commencé gis jàkka yi daan fees ci naafil la commencé di manqué nga gis ñu baree baree bari yitte woo waajal korite dana tax la ñu doon taxawee ci ay jaamu yàlla ñu wàññi ko rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ay tailleur lañu di dajale ay ñaw yu bari yoo xam ne duñ ko mën a ñaw ba tax na guddi yooyu nga xam ne dañ nit ñi dañ koo war di jeexal ci naafil la di ko jeexal ci xiyaam di ko jeexal ci jàng alquran yow nga jeexal ko ci ay ñëw rek yoo xam ne adduna nga ciy dabu te adduna moom doo ko dab mukk nga perte yiw woo xam ne nag xamoo da nga ko fekke waat déwénam déet loolu mi ngi bokk ci nax gi nga xam ne seytaane dana ko nax doomu aadama te seytaane suñ borom da ko waxoon ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka min algaawin sama jaam ñi dëgg dëgg dëgg doo am ci ñoom benn man-man lu dul nag ña la topp kon nag ku am xel du jël seytaane di ko topp di ko def kilifa gannaaw bu mu xamee ne seytaane da koo noonu loolu day am xel ak ngëm yàlla du ko nangu suñu boroom ne waaw ndax moom seytaane da ngeen koy jël moom njabootam def ko kilifa bàyyi ma fi man yàlla te moom day seenum noona wahum lakum adu bisa li zalimina badala mu ne koo xam ne day bàyyi nga suñu borom tabaraka wa taala def seytaane sa kilifa nee na la nga ko remplacé day musiba lay doon ci yow moom kat day woo ab kuréelam mooy ñi ànd ak moom ngir bu ëllëgee ñu mën a bokk ci waa safara mbokk yi bokk na ci jagle yi nga xam ne guddi gi am na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala fukki fan yu mujj yi am na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ci daal lextikaaf lextikaaf suñ ko waxee mooy nga taqoo jàkka ngir sa lépp nga def ko ak topp yàlla ak jaamu yàlla bàyyi soxlay àdduna yi ci def yépp lextikaaf boobu sunna la bu sax ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wala tubaasiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasajid nee na bu ngeen nekkee di lextikaaf ci jàkka yi bu leen jege seeni soxda yonente bi alayhi salaatu wasalaam lextikaaf na saxaaba yi lextikaaf nañ ànd ak moom gannaaw bu mu fi jógee itam saxaaba yi continué ñu di ko def jële nañ ci abi saidin al xudri radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lextikaafoon na fukki fan yu jëkk yi ci weeru koor gannaaw bi mu lextikaaf fukki fan yi ci digg bi mu ne man day damay lextikaaf fukki fan yu jëkk yi ak fukki fan yi ci digg bi ngir di sàkk guddi gii di laylatul xadr waaye mu ne gannaaw bi nag xamal nañu ne ma laylatul xadr mi ngi ci fukki fan yu mujj yi mu ne koo xam ne ci yéen bëgg naa lextikaaf na lextikaaf ci fukki fan yooyu hadis boobu muslim saloo na ko ñu jële ci aysa radiallahu anha ba tey mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan lextikaaf fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ba bi muy génn àdduna gannaaw bi ay soxnaam noonu lañ daan def ñoom itam di ko lextikaaf ci gannaaw jële ci Aïcha ba tey mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam weeru koor wu nekk daana lextikaaf fukki fan waaye weeru koor wi nga xam ne moom la mujj a woor nee na moom ñaari fukki fan la lextikaaf li ñu jublu ci lextikaaf nag mbokk yi mooy doomu aadama bi dagg nit ñi dagg ay soxlaam féetewoo topp borom bi tabaraka wa taala nekk ci jàkka di sàkku ngëneelul suñu borom tabaraka wa taala ak itam di sakkuwaale dajeeg laylatul xadr loolu tax tax dana jaadu ci kiy lixtikaaf mu soxla woo rek tudd yàlla soxla woo jàng alquran soxla woo julli soxla woo mbooleem xeetu jaamu yàlla yi te wattandiku lépp loo xam ne jëm na ci waxi àdduna aayul nag mu waxtaan ci waxtaan woo xam ne wu dagan la digganteem ak njabootam wala digganteem ak keneen ngir yitte joo xam ne da koo laaj loolu ñu ngi ko sukkandiku ci xadiisu safiya ummul muminin bi mu wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas nay lextikaaf ci jàkka ji ma dikk guddi di ko siyaare ngir am lu may waxtaan ak moom nee na bi may dellu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak man di ma gunge hadis boobu buxaar yo muslim soloo nañ ko dana araam ci kii lextikaaf mu jege soxnaam wala mu def lenn loo xam ne dana jiitu ànd boobu dox diggante nit ak soxnaam ndax suñ borom tabaraka wa taala moo wax ne wala tubaasiroo unna wa antum aakifuuna fi l masajid bu leen leen jege bu leen jonjog ñoom bu fekkee yéen a ngi lextikaaf amma mu génn ci jàkka ji wala mu génn lenn ci ay cëram jàkka ji loolu moom aayul su fekkente ne du yaramam lépp ndax Aïcha radiallahu anha mi ngi wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana nekk ci jàkka ji lextikaaf léeg-léeg mu génne boppam jëmale ko ci néeg sayyidatna Aïcha xam ngeen ne néeg yi dañoo ubbi ko woon ci jàkka ji léeg-léeg mu dëngal boppam jëmee ko ci néeg bi sayyidatna Aïcha di ko defaral boppam loolu Buxaari yu soloo na ko moo tax kon su amee aajo joo xam ne tàllal loxoom am lu muy jottali nit wala am lu ñu koy jottali mu tàllal loxoom nangu ko donte loxo bi génn na jàkka ji itam loolu du tee lextikaaf bi wér am maa nag su fekkee daa bëgg a génn jàkka ji ci jëmmam lépp loolu ci ñetti mbir lay tege bu njëkk bi muy génn boo xam ne aada la wala sharia la génnub aada mooy mu am aajo ca wanag wa war a dem ca wana wa wala génnub sharia ba mooy mu war a dem jàppi war a mu dem sangu ji sangu boo xam ne dafa war wala boog mu war a dem wuti lu mu lekk wala lu mu naan bu fekkee génn bu mel noonu la génn boobu dagan na su fekkente ne loolee di aajoom mënu koo def ca biir jàkka ja amma su fekkee mën na koo def ca biir jàkka ja nag aajo yooyu muy jàkka ja am na wanaga nga fa la muy soxla ci wàllu lekk itam mënees na ko koo andil foofa ak wàllu naan bu boobaa kon du génn ndax aajo woowul génn ba beneen génn ba ca des mooy mu génn ngir ak topp yàlla goo xam ne du ko war lu mel ne seeti ku feebar wala teewe ji am néew loola day du ko def lu dul nga xam ne da koo sart ba muy dugg ca lextikaaf ba masalan bi muy lextikaaf am na mbokkam mu feebar mu sart ne kii kat bëgg naa di ko seeti léeg-léeg wala su yàlla dogalee mu génn àdduna itam bëgg na maa teewe ji ab robam su fekkee sart na ko ci lextikaaf bi bu boobaa mën na koo seeti mën naa teewe juróom ba te loola du yàq leetikaafam ñetteel ba nag génn boo xam ne nag moom dafa dàqoonteeg leetikaaf te mooy mu génn di jaay wala muy jëndi wala muy dem këram di ànd ak waa këram wala yu demee noonu yooyu moom bu ko sarteeg bu ko sartul du ko sañ ci biir leetikaaf ndax loolu dafa juyoonteeg leetikaaf bi juyoonteeg liñ ci jublu mbokk yi bokk na ci jagley fukki fan yu mag yii laylatul xadr guddi googu nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jox teraanga boo xam ne joxu ko geneen guddi jagle ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay may ak i xéewal yoo xam ne nekkul ci geneen guddi suñu borom tagg guddi gi ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka alquran mi maa ngi ko wàcce ci guddi gu barkeel gii alquran mi guddi googu nga xam ne nee na ci lay taqale ci lay farañ fànte mépp mbir moo xam ne mu yitteel la mbirum adduna bi mbirum doomu aadama yi fii ba déwén ci guddi googu la ko suñu borom tabaraka wa taala di jële lawxul mahfuz jottali ko malaaka yi nga xam ne ñoo war a taxaw ci doxal ndigali suñu borom yooyu tabaraka wa taala guddi googu suñu borom tabaraka wa taala wàcce ci aw saar muy suratul qadr saar woowu nga xam ne ay ngëneel yu limu mi ngi ci ñeel guddi googu ngëneel bu njëkk bi mooy suñu borom tabaraka wa taala nee na ci la wàcce alquran alquran mi nga xam ne ci la gindikuk doomu aadama yépp nekk ci la seenu texe nekk adduna ak alaxira alquran moomu kon guddi gu mu wàcc guddi googu loolu doy na ko sëkk barke doy na ko sëkk màggaay ñaareel ba suñu borom tabaraka wa taala laaj bi mu def ne wama adraka ma laylatul xadr loolu day tegtale rëyaayu guddi gi day tegtale ak màggaayam day tegtale yiw wu bari wi ci nekk ñetteel ba suñu borom tabaraka wa taala ne guddi googu moo gën junniy weer junniy weer mat na juróom ñett fukki at ak lu topp suñu borom tabaraka wa taala ne laylatul xadr moo gën lim bu tol noonu ngëneelu ñeenteel ba suñu borom tabaraka wa taala ne malaaka yi dañ ciy wàcc te malaaka yi bu ñuy wàcc aw yiw la ñuy wàcce barke la ñuy wàcce yërmane la ñuy wàcce suñu borom tabaraka wa taala wax ne guddi gi salaam la guddi gi jàmm rek ci nekk ndax dafa bari ñu ci mucc ci mbugalum suñu borom tabaraka wa taala bari ñu ci suñu borom tabaraka wa taala di jéggal ci guddi gi ñoo xam ne ci guddi googu la ñuy mucc ci sawara moo tax suñu borom ne salaamun hiya atta matla al fajr bokk na ci ngëneelul guddi googu suñu borom tabaraka wa taala wàcce na ci aw saaru lëm woo xam ne guddi gi rek la ko jagleel ñu di ko jàng ilaa yawmil xiyaama loolu kon tekki na màggaayu guddi gi ba am aw saaru lëm woo xam ne moom rek moo ko tax a wàcc loolu day tekki kon ngëneelu màgg li ci nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci addis boo xam ne abu xorayra soloo na ko mu ne ku taxaw guddi gi laylatul xadr te gëm yàlla rek tax ak sakku tuyaaba suñu borom dana ko jéggal mbooleem li jiitu woon ci ay bakkaaram hadis boobu Buxaari yoog Muslim soloo na ko laylatul qadr liy tegtale ne ci biir ramadan la nekk mooy li suñu borom tabaraka wa taala wax ne ci laylatul qadri ci la wàcce alquran inna anzalnahu fi laylatil qadr ci beneen aaya mu del si waat ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran comme ci guddig laylatul qadr ci la alquran wàcc te alquran itam ci weeru koor la wàcc loolu moo tax kon la chaque année kon laylatul xadr ci biir weeru koor la nekk te weeru koor xam nañ ne fan yu néew la fan weeri fan la gën gaa bari kon guddi gu nekk nga jàppe ko laylatul xadr la chaque année kon da nga daje ak moom laylatul xadr nag ci fukki fan yu mujj yi lañ koy gën a yaakaar ci lañ koy gën a dàkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne taxarraw laylatul xadr nee na dàkk leen laylatul xadr ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor hadis boobu buxaari yoog muslim soloo nañ ci buur fukki fan yu mujj yooyu itam ci bis yu tool yi ci lañ koy gën a yaakaar ci bis yu tollantiku yi bis yu toll yi mooy fukki fan ak benn fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yooyu mooy tool yi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne taxarraw laylat al qadr fi l witr min al asr al awaqir min ramadan mu ne na ngeen dàkk laylatul qadr ci guddi yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor hadis boobu buxaari yu soloo na ko waaye ñi ngi ko gën a yaakaar itam ci juróom ñaari fan yu mujj yi ci lañ ko gën a yaakaarati hadis boobu itam ibnu omar moo ko nettali radiallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na kuy dàkk laylatul xadr na nga ko dàkk ci juróom ñaari fan yu mujj yi ci weeru koor hadis boobu muttafaqun alayhi la ibnu xajar wax ci alfat ne wax yi daal li ci gën a lëng mooy laylatul xadr mi ngi ci bis yu tóol yi ci fukki fan yu mujj yi waaye nag day toxu léeg-léeg mën naa nekk ñaar fukki fan ak benn mën naa nekk ñaar fukki fan ak ñett mën naa nekk ñaar fukki fan ak juróom mën naa nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mu ne wa annaha tantaxil dafay tux suñu borom tabaraka wa taala ci yërmandeem ci la nëbbe guddi googu ngir doomu aadama yi mën a baril seen i jëf ci mbooleem guddi yi ci des yépp ndax guddi yi weeru koor yépp a mag ñu mën a baril julli tudd suñu borom tabaraka wa taala di ñaan ngir ñu mën a dolliku ab yool ngir ñu mën a dolliku jege suñu borom tabaraka wa taala mbokk yi laylatul xadr guddi gu mag la goo xam ne ku am occasion fekkee ko ci sa dund suñu borom tabaraka wa taala defal la tawfiq nga dajeeg moom sa mbir yépp mën na caa doxe baax ndax dund juróom-ñett fukki at xam ngeen ne lu jafe la ku ko dund itam juróom-ñett fukki at yépp nga def ko ci aw yiw def ko ci jaamu yàlla def ko ci topp yàlla loola itam boobaa lu jafe la nga am guddi goo xam ne waxul ne ñoo tolloo moom juróom-ñett fukki at yi waaye def ne moo ko gën xayrun min alfi shahrin dara nag su xasee gën dara kenn xamatul fu mu yem kenn xamatul nu mu ko gënee suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam guddi googu ci la suñu borom tabaraka wa taala di ubbi bunti yiw yépp ci lay jegeel ay soppeem dana ci déglu kaddu képp koo xam ne yaa ngi koy ñaan képp koo xam ne yaa ngi koy jéggalu dana ci bind itam yool yu mag mbokk yi guddi googu guddi gu mag la goo xam ne nañ ci farlu bu baax a baax a baax a baax te waxtu wii nag mooy waxtu wiñ koy sakkoo mooy waxtu wiñ koy farloo nañu wattandiku càggante nañu wattandiku sàggante nañu wattandiku topp bakkan nañu wattandiku topp adduna jaamu yàlla kat la ca borom bi tabaraka wa taala di fay mooy doomu aadama bi eggale ko te rafetal eggale wiin kon weeru koor su jubee bala ñu yittewoo korite di yittewoo te korite ga sax yittewoowuñu jaamu yàlla gañ cay def ci julli gaag sakkaatul fitri ba waaye yaa ngay yittewoo loo ca war a am ci alal kon nag day mel ne ñaari tereet ubbi na tereet boo xam ne tereetu alal la ñu bari nee nañ marchandise yi day gën a jar téere yi dañuy gën a bari client waaye tereetu jaamu yàlla itam ubbi na yow nag yaay seet ñaari tereet yooyu ban nga ciy profité ban moo la ci gënal suñu borom nag tabaraka wa taala nee na woon inna haulaai yuhibuuna al aajila wa yadaruuna waraahum yowman taqila mu ne man kaana yuridu alaajilata ajjalna lahu fiha ma nashaau liman nurid summa jaalna lahu jahannama yaslaha masmuman madxuura mu ne ñii day dafa mel ne lu teew li moo leen gënal tereet bu teew bi li ngay daal di jaay dugal ci sa poos dafa mel ne moo la gënal tuyaaba ja ñu lay dencal soo duggee ci sa bàmmeel fekk ko fa te mbokk yi nag bàmmeel lu mat a waajal la kon nag tereet baa ngoog nañu góorgóorlu bu baax ci màng yiw wi màng mboolem lu ci nekk ci tuyaaba donte sax tereetu adduna bi dañuy rëcc donte njaay ma dañuy rëcc donte ñaw yàllañ cay mën a ñaw du bari waaye fekk na am nañ ay tuyaaba yu bare bare bare allahuma ij'alna mimman saama shahra wa adraka laylata alqadr wa faasa bil ajri alazim wa thawaabi aljasil allahuma ij'alna min alsaabiqina ila alkhayrat alhaaribina an almunkirat alaaminina fi alqurufati ma'a alladina an'amta alayhim wa waqaytahum alsayi'at allahuma a'izna min mudillati alfitan wa jannibna alfawaxisa ma zahara minha wa ma batan اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك واجعلنا من أهل ساعتك وولايتك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله